Badou Ndao maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Ndao nga nekk njiitu mouvement des porteurs de projet yeewu leen déjà ma lay laaj naka nga gisee phénomène émigration irrégulière bi nga xam ne actuellement euh, moo nekk ci xolu actualité bi euh, pratiquement chaque jour euh, bato yi ñu ngi jóge fii jëm Espagne ñu bari aussi ñu ngi faatu ci yoon bi naka nga ko gisee. waaw Ndeye Comba maa ngi lay nuyu nuyu sa auditeurs yëpp. waaw mais phénomène émigration bi moom xëy na am bo li li bees kay moom mooy peut-être violence bi ñuy émigré quoi jël gaal yi fii mbëkk loolu ñu ngi yàgg quand parce que je crois que depuis année deux mille yi ba léegi muy am léegi day toog ba caag mu wàcc toogaat ba caag yéegaat waaw bon mais ak gars yi dama loolu yàgg na fi kaaw Moodu Moodu yaa ngi fi ak Fatou Fatou yeeg yooyu yàgg na fi mais nag léegi euh, li fi xaw léegi nii mais bon dafa am loo xam ni ci dëkk. dëkk dafa am jeunesse bi noo xam ne noonu la ñuy waxee moom ak di defee ak moom parce que jeunesse dañ koy kii euh, mu am espoir xalaat ni kat man demee dëkk mun naa fi tekki tey mun naa fi tekki suba mën naa fi tekk ginnaaw suba mais moom am nag ay fen yu bari yoo xam ne dafa nekk ci affaire immigration bi fen yoo xam ne dañ koo fen jeunesse bi surtout policiers yi nag ñoom ñoo ko gën a def gëm loo xale yi ne leen fii mën leen fee tekkee mën leen fee doon dara dëkk bi xam nga safara soo xam ne la fii boo leen fi toogee tamit da ngeen di yàqal seen bopp wala da ngeen di kii te loolu du dëgg waaw ñun waxuñ waxu politique liy dëgg li am moom mooy que Sénégal quand même du du du Palestine du du Afghanistan du feneen guerre amu fi dara amu yi nga xam ne ñoom dañuy màbb xale yi war a màbb di dugg ci géej gi wala ñu jaar ci désert beeg yooyu moom mooy dëkk yi nga xam ni yàqu na yàqet guerre baa nga fa et de suite mais fii amul guerre moom ci amul dara donc phénomène bi war fi woon am waa ampleur bi mu jël léegi nag il se trouve que ay mag ñoom ñoo jël sur eux di wax xale yi ñu leen ko voilà fii amuleen fi benn espoir amuleen fi te ñoom ñu leen ñu wax loolu xale yi ñoom ci la ñu tekkee yor ci seen ay taraanga ba tey waaye ñu ne ñuy wax loolu xale bi moom mu ngi yore këram gu rafet yore otoom gu rafet ba pare bëgg gëm loo xale bi ne ko yow mënoo fay tekki Sénégal nag bu doon dëkk boo xam ni la dafa nekk en guerre wala mu dëkk nekk dëkk boo xam ni kenn mënu fee teg si du fees dalek ay étranger yu fii ñëw fii di ci tekkee donc je crois que discours boobu bokk na ci li nga xam ni xale yi dem ba gëm ko parce que xale yi leen mag ñi di wax loolu ñuy gëm bon am na ay problème économique aussi yu touché benn secteur te secteur boobu moo moo nekk ci géej gi moom mooy euh, accord de pêche yi état yi di signé fii xam nga ba nga xam ni géej gi bon xale yi ci nekkoon yëpp parce que y' a plus de deux millions de personnes yuy liggéey ci géej gi presque ay deux millions de personnes lañu bu ñu doon xam ne ñoom ci biir géej gi lañ doon jëlee li ñu am di ko fa am di ko ba léegi mënatuñ ko fa am parce que état bi def na ay accords yoo xam ni géej gi mënatuñ fa am dara te ñoom mën nañu dawal gaal seen ay am nañ ay morom leen dawal gaal am nañ moom la capitaine yooyu noonu yuy yóbbu yi am nañ ay gaal am nañ ay yëpp day yomb ci ñoom ñu dem loolu moom mooy wax bi xam nga. maanaam su fen yi ñoo bëri dañoo fen xale yi ba nga xam ni voilà xale yi gëm ne effectivement mënuñ fi tekkee après ñu màbb di dem parce que xale bi moom bu toogee ba kii xale ragalul dee xale du ragal dara ñuy ñu gis aussi Badou Ndao euh, même bu fekkente ni du lu bees mais fan yi dafa bari trop jigéen ñi nga xam ne dañuy ëmb ñi dañuy jël seeni doom di dugg ak ñoom si gaal gi ak risque yi si nekk yépp aussi loolu noo ko gisee. waaw jigéen ñi moom yàgg nañu dëgg la jigéen yàgg nañu immigré ñu moodu moodu yi amee noonu la faatu faatu yi amee bon te jigéen ñi aussi il faut que ñu xam ni ñoo fi ëpp ñoo fi ëpp man bi rek wax dëgg jigéen ñoo góor ñi ñoo jigéen ñi ñu jaaxal ñu trop mais jigéen ñi société lañ bu lañ bokk mais tamit jigéen ñi ñoo gën a fragile sax ci bu fekkee ne dangay wax ak euh, euh, da ñëw pour di wax naka su dul noonu jigéen ñoo ci gën a fragile parce que bon ñoom ñu ngi fii effectivement bon fii compliqué na kii avenir bi kii nag yooyu te jigéen ñoo fi ëpp bon maintenant tamit euh, dañ koy gis xam nga ñoom xam nañu dañu seetaan télé xam nga léegi ñi ay seetaan lu nekk réseaux sociaux yi yëpp da ngay gis yeneen dëkk yi boo xoolee ay Grèce ak yooyu nga gis yeneen dëkk yi dañuy ànd ak seen ay doom seen ay famille nga dëkku naar yi dangay gis gaa yi wàcc ci famille entière ay femmes yu biir yeeg femmes yu kii yi africain yi après nga koy gis bien évidemment aussi sénégalais yi après dootuñu ragal parce que risque bi li tax immigration bi grave ci bopp xale yi. Mhm. xale yi ñoom bon euh, risque bi ci nit ñi di gis ñoom duñ ko ci gis ñoom arrivé ba la ñuy xool. xam nga lu ñu dégg na rek waaw lu ñu dégg na rek kenn arrivé na rek ñu def maanaam risque bi nga xam dañ koy jël mënu ma fii wala damay fanaan ci guddi gi wala sedd baa ngi commencé wala yooyu xamuñ am na ci géej gi xamuñ climat bi changé xamuñ dara. à partir du moment où un phénomène bi fii xanaa xamoon ndénku moom xaru day xew. Mm-hmm. day gis ay dëkk yoo xam ne ñuy rek xaru xew xaru nit ñi di xaru donc nit moo complexe waaw nit moo complexe mais man vraiment ma ko xale yu jigéen ñi di gën a bari xale yu ñu ñu ñu kii ñu ne naawu si ñu ne foofu parce que Sénégal bii aussi am na si ñoo xam ni bon euh, parce que nit ñi dafa am ay phénomènes yi ñuy teg te duñ ko mesurer conséquence yow bu fekkee ni da ngaa am mooy si jóge fii. dem di wësi ji wësi wu dem di États-Unis di fa di fa wësi ji xale bu jigéen bi toog ci bopp koñ bi fii xëy na moom amul moyen comme yow visa wut kii dem ak yooyu noonu bu gisee loo xam ne xalaat na ne bu demee wësi ji wësi Espagne ak doomam day nekk Espagne da koy def da koy def moo tax nit il faut que ñu Sénégalais yi ñu taxaw waxtaanaat waaw ci fen yi ñu ñuy sene jeunesse bi ñu ñuy ñu ñuy affaiblir eh, la conscience de la jeunesse di gëmloo xale yi yoo xam ne kii xale yi nag góor ñi jigéen ñi ne te jigéen ñi ñoom ñoo ëpp. Hmm. Euh, beneen aussi mbir euh, Badou moom mooy front sociale bi actuellement dañu gis ni pratiquement euh, syndicalistes yëpp wala mouvement syndical yi ñi ngi amal ay mouvement d'humeur ay yëngu-yëngal front social boobu naka nga ko jàngate si ñetti de yi des ci élection présidentielle bu 2024 waa mais il faudrait savoir syndicat yooyu di yëngal ci lan la ñuy yëngal syndicat yooyu ndax dañuy yëngal ndax Senelec mu ngi bëgg a yóbbu nit ñi laab yi sii la ndax dañuy yëngal ndax ceeb bi dafa cher ndax dañuy yëngal ndax li est-ce que yooyu ci loolu la ñuy yëngal man gisuma syndicat bu yëngal ci loolu syndicat yi ma fi gis ñuy yi ma ci ci li ma jot a xam gis leen mooy nañ ñu gouvernement bi waxoon nañu ne ñu yokk suñu solde ak gouvernement bi nee na woon daf ñuy tabax naan dañ ma kii donc ce sont des yoo xam ne ñoom la seen i mbiru bopp la mais man gisuma ci syndicat yi alors que c'est leur rôle c'est leur rôle que le front social ñoom la fay am ñu jóg pour l'ensemble des Sénégalais waaw jóg ne voilà Senelec kat li ñuy def nii négal ñu jóg syndicat yëpp jóg waaw bi ñu jógee ñu toog ñu ne nañ jàmmarloog Senelec pour xool lu tax courant bi kii lu tax lii ak la la def parce que yi ñoo ko def man de nañu Oumy Ndour laa ba gis mu jóg ni kii Oumy Ndour du syndicaliste mm-hmm. mais donc syndicaliste yi ñu ngi ci seen logique bu bu corporatif donc maanaam lu leen concerné ba pare xam ni peut-être période bi euh, euh, bon gouvernement bu ci nekk aussi yow ni lijjanti affaire élection pour toogaat fi lu la defloo presque duñ ko def man loolu laa fi gis na man gisuma le front social ñu taal ko je crois que c'est le front revendicatif corporatif Hmm. Euh, beneen mbir aussi occupé actualité bi moom mooy gis nga euh, si wàllum Sénat parce que Sénat dafa joxe woon position am euh, par rapport ak fiche de parrainage Ousmane Sonko mu ne direction général des élections na jox fiche de parrainage à Ousmane Sonko yàggul dara kon kuréel googu Doudou Ndir jiite président de la République màbbal ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon membre yi commencé par le président. Doudou Ndir euh, tabbaat yeneen membre yu bees mais boobaak léegi coow li bari na parce que nee nañ ay retraité la fa teg ay magistrat retraité ainsi de suite am na sax ñoo xam ne nee nañ dañuy taxaw temm pour rek président mën a dellu gannaaw si décret boobule naka gisee euh, les nouveaux membres euh, bu Sénat. ma ne man gisuma dara les nouveaux membres du Sénat parce que. mu def ko gardien woon. bu ko neexoon mu def neex cest à il faut que sénégalais yi di dem di di di wutali l'essentiel bu ñuy xeex xeex pour que affaire yi tegu ci yoon waaye kenn ku nekk day xaar ba nga xam ni yow teg la yoon te yow jour nga dem lu ñu tegul ci yoon nga ciy door jub tant que sénégalais ñu ngi agiré noonu nii lay demee lan moo may président de la république ñuy war a mën a nommer sénat pourquoi la classe politicienne bi nga xam ni moo fi nekk ñoom lijjanti wu ñu woon ba nga xam ni bu ñu nommé Sénat du président moo koy nommé mais dañ koy nommé ci consensus wala dara pourquoi ñoom lijjanti wu ñoom seen mbiru bopp ne ñoom ñooy ay politiciens xam nga tant que Sénégal ñu ngi ci yooyu bàyyi ñu président de la République def ko waajoo xam ni waxuma waxuma Macky Sall de président de la poste bi. ah def ko koo xam ne yàlla ju ndaw la lu ko neex mu def ñu ne mu mën ko ñu ne mu mënal ko boppam bu koy def ñoom ñi ko d'accord ñoom ñi ko bàyyi ba loolu nekk foofu demuñ ci constitution bi demuñ ci dialogue national demuñ ci pour imposer à ce que les règles def ko ay règles consensuelles ñoom ñu leen dal seen affaire la waaw parce que ñoom ñoo xëy na dañoo bëgg nag ay politiciens ñoom ñoo xëy bëgg ne dañu bëgg ñu réguler la politique nañu dem réguler ko ba nga xam ne yoon kese moo fay am ba président de la république di toog di mënatu ko neex ak nu mu ko neexee pendant des moments cruciaux ñuy indi kii la kii yoon ak kële la kii yoon yaa may dégg hmm. man moo tax débat boobu man c'est un débat qui ne m'intéresse pas personnellement parce que ñun fii dañ ko fay wax ba tàyyi te kenn dégluwuñu opposition bii nag man opposition maa ngi bëgg a yàgg ci dëkk bi opposition bu ko gënoon niil bi opposition bi am ba léegi mosuma koo gis parce que essentiellement gisoo fi benn avancée majeure politique boo xam ne jóge na ci opposition bi Macky Sall nekk fi di ngàddu droite di ngàddu gauche ñoom ñuy nekk sori bi ainsi de suite ba finalement mu ngi nii waa ji nommé na Sénat lan moo mel mu nommé Sénat lan lañ def ba fexewuñu ba Sénat boobu Macky Sall ko mën a nommé en tant que président de la République ah yooyu mooy seen wax il faut ñuy mener les véritables combats waaw yi nga xam ne mooy avancé loo dëkk bi te loolu dañu war a dem fa nga xam ni moom la affaire ba nekk ci constitution bi ñu ne président war na mën a yegg fii président war na mën a kii fii lii nii dañ si war a waxtaan ba jubóo lii moo kii bi parce que Sénégal li ko indi fii lii la da ngay toog ñu lay wax naan la code électoral consensuel bu deux mille bu quatre vingt douze bi ay acteurs ñoo dem ñefe ko ne li ngeen di def nii léegi nii lay demee bu njëkk dañ naan nañ ñëw di voté waa dëkk bi taxaw di la xool doo ñemee voté ku ku contre Abdou Diouf wala contre PS gars yi xeex ko ne il mu am isoloir nit yi yëg kii ñu ne code électoral xaw ma la consensuel gars yi ñëw imposé mu ne waa d' accord naa ko duma ci dindi virgule ay avancé la yoo xam dañ ko teg tey nga toog fii di xoole moom mu yore outils yëpp di question si tënk rek ce euh, mouvement bi di yeewu leen porteur de des projets euh, lan lay proposer exactement ci souffrance sénégalais bi dund bi cher na facture courant yeeg euh, ndox yi yokk na ba jéggi dayoo askan wi sonn nañu lot nañu lan ngeen di proposer yéen non ñun moom si liñ ciy wax ñun dafa clair leer nañ maanaam gis nga dëkk stabilité paix sociale moo ko yore nit ñi di liggéey ci jàmm baykat yi di bay sàmm yi di sàmm fonctionnaire di liggéey yi mais mënoo toog yore benn dëkk boo xam ni benn classe politicienne moo ko nekk te ay benn ñoom ñëpp ñoo bokk benn bëgg-bëgg moom mooy nguur gi ñu ne ci nguur gi ñu ngay liggéey du leen fa bàyyi à tout prix ñu nekkul ci nguur gi ña ngay def naka suñu noonu ñu fekkee à tout prix ce qui fait quoi ce qui fait que politicienne sénégalaise muy opposition ak ci parce que benn lañu tey ñooy xëy boor bii dem boor bële gannaaw suba ñu ànd fii gannaaw suba ñu ànd fii quoi que loolu xale yi door a judd sax gis nañu ko ñaari politiciens ngay gis ci féete boor bi suba kële intérêt yàqu ñu ànd ñoom nan la ñuy ànd seen ay intérêt moom moo leen boole ñoom na seen ay intérêt ak intérêt sénégalais yi nguur gi ma ngay jël suñu alal di ko def ci ci ci ci nu mu ko neexee ku leen di nommer ko neex ay mbokkam ak ay xaritam ak ay assoles yooyu ñuy séddoo di di di di gundaandaat côté ba ñu ngay fekk ku Sénégalais bu liggéey politique bu waxul di xëy di lijjanti kii ñu taal entreprise la waaw donc il faut que Sénégalais yi yeewu ci benn affaire nekk danger bi nga xam ni mooy danger Sénégal danger bi nga xam ni moo problème bu am Sénégal moo ko ci indi. ce sont les donc na Sénégal yi jóg ci politiciens yi dem la ñuy toog seen place ñu xam ne ñoom ñun Sénégal yi nga xam ne ñoo ci gën ñun Sénégal yi nga xam ne dañoo am entreprise wala ñu am boutique wala ñuy importer wala dara ñoom ñëpp ñoo ci yem ñuy opposition bi ñuy pouvoir bi kenn amu ci entreprise kenn amu ci dara ñii seen ay wax la ñu jox bu ma yéegee naa def nii ñu ne ñu alal la ñu di ko jëfandikoo mais ñuy liggéey Sénégal yor Sénégal di jox xale yi liggéey di bay ñii di di bay nit ñi di dundal nit ñi di sàmm di dundal nit ñi ñuy defar oto yi di defar kii am na njëriñ Sénégal politiciens yi bokkuñu ci ñoom dund suñu kaw rek la ñuy def mais nag ba pare nag bëgg ñëw ci seen wutu nguur googu merci ay violence yoo xam ne ñu euh, médiateur ñoo ngi lay remercier en tout cas bu baax a baax. merci ñuy fàttali yow yaay président wu. yeewu leen di mouvement des porteurs de projet.